bisimila Ousmane Sonko ngay doxal Sénégal vision 2050 ca dëkkub Macky Sall yor yor bi nu ko yëgal ne Fatick la demoon ci campagne électorale législative yi moom njiital Pastef dig na askan wu Fatick nag ne coono ganu nekkee jamonoy Macky Sall ba tey te kenn fekku leen ca dana leen ca génne moom ak nguuram bu nu ko joxee majorité réew mi quotidien ne bokk na ca la mu dig waa Fatick kay moom Ousmane Sonko mooy defal leen ay usine de transformation sel ak mil maanaam xorom seeg dugub si dana leen defal usine yoo xam ne danañu ko mën a liggéey Macky mañ daan woowee buuru Fatick waxtu woo ca woole yéene koom gi ñuy wax ci Sénégal mbiri Amadou Ba ak dil biñ koy waxal diggam ak Pastef réew mi quotidien ne Macky met les points sur les i xamle na moom jiite si ko ca booba lépp yéene kaay it mu ne moo retourné pas à du jour maanaam ñibbisee guma léegi Macky Sall it xamle ne dilu la kenn Macky ca le peuple quotidien ne bis bu ma waajee ñibbi si Sénégal man maa koy defal sama bopp mu doon annonce officielle boo xam ne ñépp ciy jotandoo Macky Sall ne ba may jógee Sénégal nag defuma lu dul tradition maanaam ñi ma jiitu lañ daan def ca loola rek laa topp ndax am président Macky sal ne bu demee ba ñu woon ko ne bëggatuñu ko dafa war a génn bàyyi ña ko fa wuutu ñu mën a doxal ci jàmm waaye jàpp na ne Sénégal nag juróom-ñaari weer yi ñu weesu nekkuñu ci jàmm ndax nee na ba Diomaye ak Sonko jëlee nguur géeg léegi dafa gunu fi dara lu nit xam askan wi dañoo gën sonn tax mu ne buñ deful lanuy dëkk Macky ne li waral samay àndandoo sàkku ci man ma jiite seen liste ngir ñu am taxawaay bu dëgër ci assemblée nationale mën a génne nit ñi ci coono gi leen Jomaay ak Sonko dugal Amadou Ba feelu ko ca Vox Populi ne Jomaay ak Sonko mooma wax nañu ba jot réew mi fu ñu la seen yaa ngi wax rek sonn nañu ci wax jeeg coow li rawatina ak wax ju ñaaw ji lañuy xaar ci yow mooy nga liggéey assemblée nationale bi ñu bëgg nag Amadou Ba ne du assemblée boo xam ne député yi dañuy ñëw di yéeg ci kaw taabal yi journal ba ne ba mu demee kooko fa teeru moom Amadou Ba booba jamono ca booba léb yéene kaay Ousmane Sonko ngay expliquer philosophie projet ba discours bi méthode bi njiital Pastef ma ngi koy toj ca booba léb yéene kaay bi ne Amadou Ba bu Pastef moom dégagé nay responsabilité ci transhumance gañu nemmeeku ca Pastef Thiès yéene kaay bi ne Amadou Ba raxasu na ca ba set xamal militant yi ne moom du ca lenn Ousmane Sonko leen képp ku ñëw dalal leen ko waxtu woo di nu yeggee ni takku wàllu dalee ci kaw Ousmane Sonko gannaaw mille milliards yi mu ne gis nañ ko cib compte scandale bi ci gaz bi ak bi ci mbiru campagne bi violence bi ci am point actuel ngay laaj ndax ministre de la justice dana ca dem ba sës yéene ne coow laa ne kur gannaaw kàddu yi fi Abbas Fall yëkkati woon moom Abbas Fall journal booba gis ko ci tànki Aliou Dembourou Sow yéene kaay bi convocation maa ngi wéyal sama campagne électorale campagne bu ñu nar a yóbbu ci assemblée inclusive maanaam assemblée boo xam ne ñépp cay bokk enquête moo ni gisee joxoñ investiture nit ñi amee laago ñoom la investir 25 ya sax ay titulaire lañu yat ma faal njiital fédération ouest africaine des personnes handicapées ne loola jéego la bu ama am solo jëm ci ñépp gis seen bopp ci wàllu politique waxi politique képp Abdou Mbaye nii la jàppee junni milliards yi Ousmane cib compte particulier kaddu yu mu yëkkati ca Walf Quotidien booba lépp yéene kaayit xamal ñu ne PDG bu Walf seeti woon na njiital gëm sa bopp ca kasob Tamba maître Cheikh Niass di sàkku ñu teggi loxo Bougane Gueye Dany Bougane Gueye Dany mooma tey jii lay janook attekat ba ca tribunal bu Tamba waral Sud Quotidien ne dëgg la ci moom moom njiital gëm sa bopp bokk ci coalition sàmm sa kaddu yéene kaay bi ne tey la ko yoon di létt mbaamu firi ko yéene kaay bi ne gannaaw mandat de dépôt ganu gàlloon ca ndoddam ngir ñàkk warmal takk der jàll ko baat ak jii lay janook attekat tribunal ba nu ko war a àtte ma nga ca haute surveillance takk der yéenekaay bi ne foo leen natt weesu nanu ko tribune ne ville bu Tamba ci boppam lanu barricade yéenekaay bi ne foo tourné takk der la dispositif de sécurité bi renforcé nanu ko ci bépp boor pool d'avocat ba yéenekaay bi ne bokk na ci avocat yee ca ne maître El Hadj Diouf ak ñeneen ak ñeneen hôtel ya nag yéenekaay bi ne daa fees dell ndax mobilisation bu rëy la gëm sa bopp woote ànd ceeg waa coalition sàmm sa kàddu l'observateur gis ne nag risque yu rëy a ngi ci kaw njiital gëm sa bopp bugaan lu ne mën naa dal ci kawam procès bi yéene cabinet bu ama am enjeu la l'observateur noppi ci Bougane dikk ci Amadou Ba ak ambition politique am wax ci menace bi Sonko doon waaye itam épreuve élection législative yi ñu dëkmal élection yooyu ci lii quotidien Amadou Ba njiital coalition jàmm njariñ naan sénégalais yi dafa jot ñu jaare ci yi la wote corriger erreur bi ñu defonte erreur ba dul lenn lu dul fal Jomaay ak Sonko mu ni wax nañu ba jël réew mi danañu wax nag ba yàq la wax askan wu Sénégal ne leen juum ngeen waaye nag mën ngeen a koo jubbanti jooyanti journal naan sénégalais yi kay fi mu ne ñu ngi xam dëgg dëgg xar kanamu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ñii leen jiite tey Barthélemy Dias ne ñépp teg nañu seen bët ci doxalin wi ñu jël te ñu jàppoon ne weesu nañu yooya kaddu yu mu yëkkati moom te dali si sàmm sa kaddu ba mu génnee ca kër Monseigneur Benjamin Ndiaye Thierno Madani Tall ak Serigne Maodo Sy Dabakh tribune ne sàmm sa kaddu la ko yóbboon ca kër kilifa diine yooyu mooy jéebaane nguur gu bees gi yéene kaay bi na ko tegee loxo te jaadu wut bugaan infraction du jour ñépp moom la ñuy waxtaane xel yéppit ci moom la dem ndax atte gëna ko war a ca tribunal bu Tamba googa les économies ngi ci haute sécurité yéene bi ne ay convoi fanaani nañ fa journal booba jógeeg ñun Tamba dem ca boori dex ba xamal ñu ne ñafaree ca dandema yo ba tey ñu ngi ci njàqare yéene kaay bi ne kër yu bari seeni borom wacc nañu ko yoon ya kenn mënu caa jaar école yaak hôpital yépp dafa tëj tool yépp a fees ndox yéene Baba Kumba la ñuy tàbbi waral ñuy woote wallu ca boobaleb yéenekaay yéenekaay bi di libération waxtu woon naan ñu diggante Dakar ak Riyad ma ngay gën a dëgër yéenekaay bi ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye sékk ak partenariat diggante ñaari dëkk yi ay secteurs yoo xam ne priorité la journal ba ne nañu ko amal gannaaw tukkim njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ca Arabie Saoudite googa ñu dellu si ci Ndakaaru boobaleb yéenekaay buy wax ci vaccinopole bu jam ñaajo ak ñàkk sàmmonteeg war may ci wàllu environnement ak social journal bi ne ab audit moo ca joxoñ baaraam tuuma institut pasteur bu Dakar ñu des ci libération mi nu yëgal ne ci mbiram Amet Ndooy dossier baa ngay gën a diis gann ndax moom chroniqueur bi dem na kaso policier ba ko dimbale woon ci mbiram permis mooma it yéene kaay ba ne teg nañu ko loxo mi ngi ci arrêt de rigueur ñu nit foo fay doon sunu arrêt tey ñu ñaanal leen kenn dal jàmm dig dajee ëllëg incha allah